vidéo bi nag maa ngi ko jox sama mbokk jeg ji def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw eh bu mënee da ngay def kajoor di wax bawol di wax soo mënul yemal ci la nga mën boo bëggee noppaliku tabaski gi ñu jub si jeg bu nekk na xam boppam waaw gis nga ñi mën nañu def nag ndax ku ko mën def ko waaw waaye ki mënul na xool ca la mu mën. mu yam ca kepp moytu leen engagement yi ngeen di jël moytu leen boo jëmbaay andi jas neeram wala ay mbasin riisam ngeen sëgg tànn ba doyal te wéeroo leen ko fenn ngeen sëgg tànn ba doyal te amoo leen lu ngeen ko fayee pare bëgg koo wéer seen borom kër ngeen xam ne xarum tabaskeem da koo doy sëkk sëkk sëkk sëkk mu bëgg caa yam ak la mu war a dund ak njabootam nga bëgg koo yan loo xam day metti lool bu dee sa borom kër am na ko sax bu ko fitnaal bàyyi ko mu ñëw a xolam lam la mënal mu defal la ko waaw bu dee sa borom kër am na ko bu dee amu ko nag tarkal la ngir waaye bu ko teg fitna ngir yàlla bul ko sonal jamono ji ñu toll dëgg la de metti na lool nag. tar fu tar yam fa la yam waaye nag ku ci ànd ak sa ngor du metti ci yow ku ci ànd ak sa la nga mën du metti ci yow ndax def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw jéggi ndaw ji nañ ma jox nopp ma ñëw man soxna Mbodj Mbaye jéggi ndaw ji lay waxal nañ def ndànk bu ci leb bor boo xamante ni benn fan lay doon waaw suba gi ba ngoon gi mu jeex tàkk bor ba topp la fu na nga dugg fa nga weer sa bopp weer sa borom kër sa lépp ni fàng fàngaral xale jigéen yéen laay waxal bu leen tabaski gii jaral def naka sudul noonu dugg ci dëkk bi di sëfa naturel lu leen neex sol jigéen amulul boppam jigéen nay fonk boppam def leen attention bu baax a baax a baax a baax lii benn fan la day paase lu ci waay mën na defal ak na ko war a mën a defee ak la nga defit ba nga xamante ni moo jaar yoon bu mu metti benn yoon fii lu fi waay metti rek mu metti waaye lu fi waay yan mu oyof boo bëggee mu oyof rek day oyof kon nag yenn yi dara jaru ko fi lii day jeex tabaski gi jaru ko boo mënee defal soo mënu yamal la ca borom kër mën nga def ko waaye jël sa borom kër rek fitnaal ko fitnaal xar ma dikk nga ni ko luy ndey xar mi yaa ngi dégg xar mu ndaw mi nga dima ko jëndal yanu ko sa borom kër nga weer ko bam ni fang jeeg jaan kii fay di dem yaa ngi dégg ñii ngi ciy fay di dem ñii ngi ciy reyanteeg seen i borom kër ñii seeni pexe jeex xam nga lan laa bëgg cib jeeg da ngay dal. jéeg la nga tollool yam ca gis nga chaque boo jëlee sa bët bii teg ko ci ka nga tane du metti waaye à chaque fois boo bëggee xool si nga la tane da ngay daal di sonn da lay andil nga sonn sonn sa borom kër def leen li ngeen mën wax leen li ngeen mën ab bor da weer waaw jëlu borub jàmbur yanu ko wéeroo ko fenn pare mu taxaw ah di la benn benn benn ak ñaari ñaaral doo ca mën lenn nga dese sa gàcce ga sëgg doo xam looy wax jara jaru ko fi ndax lan benn fan déedéet xale yi nga xamante ni mënta ñàkk ba mënta ñàkk ci ñi mënul te seeni waajur neew néew doole jël leen la ngeen am jox ko seeni doom ñu sol xale da nga koy teel a tàmmal li may dund gëm ko xale da nga koy teel a tàmmal li may dund ci laa lay nàmpantal ba nga yegg ba nga màgg kon nag bu demee noonu la nga tollool def ko ca xale ba te bàyyi génn fitna gi ngeen teg seeni borom kër boo amee la nga am muy néew ko bari sol la sa doom ka am lu dul jeex des neeral doomam da ko am doole moo yamul doole ni toll kon nag bu leen fitnaal góor ñi bu leen fitnaal góor ñi xool leen li ngeen mën ngeen def ko la ngeen am ngeen yam ci kepp bu ngeen bëggee noppaleeku mais yenn dara jaru ko weer sa bopp weer sa boroom kër sa lépp ni fang ab sama roomu jégteen di dala dajj dajjee te mënoo ci dara ndax lan solo tabaski benn tàkkusaan après mu jeex dara jaru ko fi loo am sol ko te jéem a xool na say doom bëggee loolu mooy solution bi te bàyyi génn fi dëgg ngeen nekkee bu dee xale jigéen jaru ko bu dee jeg gi say jaru